bëreb bi palaasu saytane saytane dafa amul capital muy iblis lu bon luñ daan def fi lañ koy defé képp ku daan xex sax fi nga train ay nga daan wax ne na may dem xexi fo kon fi lu baax ne wut fon yeg yeg bi na moy en 1913 bima ma julli juma fi ñuy wax guiss ko fi juma itu couleur yi ba ciow amé bi ñu demee Sëñ daf ne baye len ko bobu suñ borom mu ñoo ñeeyal fi ñu délu dem fële fi do wax ñu andi lii te lii xajul fa de buñ ko mayoon xaj lii xajul fa biñ coow amee yàlla ubbil ñu fii mbégte googu nag du jog ci man bopp may sangu suuf nu ngi koy sant bu baax a baax sant sëñ Tuubaa fu ñu toll moo ñu ndax kenn ku luy sàmm bu ko wax sëñ Tuubaa kenn ku luy sàmm bu ko wax sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa la namoon ci moom bu amoon lii du am tey. xale yi xale yi xale yi muy taalibe yépp li ma am ci yëg-yëg mooy lii xàllal la yoon woo xam ne xale yi lañ ko xàllal ndax tey ku gis lii sa dootu dem ci lu bon lu baax rek ngay naat te lu baax moo xam njëriñ kon nag lii jëmbatu xale yi la bisu tey bii taxawaay tey bi jëmbatu xale yi xale yi ñu fi teew ñëpp seetal ay ay karo yu ñëw ñuul ñëpp kon nag xam ne lii la am soxal na leen yoon sëñ Touba soxal na leen kon nag jërëjëfee sëñ Touba jërëjëfee sëñ Touba jërëjëfee sëñ Touba. dañuy sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamni l'islam dafa am ndam dafa juk si kanam té ci kaw rek la jëm inshallah allah. message bi ci to lancé wala ci. julli yëp nek ben andando bokk ndeyax bay sut Sénégal nañu jappanté parce que li yombul yalla daf ñoo defal lo xamante dëkk bi li fi am amu benn dëkk nañ sant yalla bu baaxa baax di jappanté nek ben lor lay ñaan tarixa yëpp nañ jappanté nek ben da tay tay murit a ngi fi tijaan ngi fi lay ñep xol kenn desul tey tarixa yëpp kenn desul tey macha allah yàlla Sénégal jëm kanam yaa na fi jàmm sax si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah. waaw yow yi mu ci am mooy maanaam mooy mbégteeb yoonu murid la rek di mbégteeb yoonu lislaam waaw te parce que lii nii maanaam lu mag la ci yoonu lislaam waaw ku mel ni jumaa yi naan naan Masaalikul Jinaan maanaam dina représenté eh, jumaa yoo xamante ne nii moo gën a mag maanaam ci à part Touba maanaam ci Sénégal te li tamit ak mbégte la ci maanaam yoonu murit nga eh, xam ne ñetti fan yi nga xam ne moom la Sëñ Touba defoon fii nii àndoon te ak coono lii nii ak mbégte la tey jii ci ci ci moom waaw dañ ciy dañ ciy santaat bu baax a baax a baax di ñaan laat maanaam Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér.